kookee dal dina setal kii di président Ousmane Sonko bam set wecc ndax né si lim jot am ak relation kii di président Ousmane Sonko mayna mu xam que ne kookee du lal khalis bu tilim. légui ci actualité dégg nga ciow Ousmane Sonko bi ak 20 euh, milliards de dollars yi ñuy wax Qatar te mu siw ciow lolu nga xamni lolu aussi benen affaire la parce que ñi ngi dégg un député bu ci am lu mu ci wax à l'Assemblée nationale ak yeneen yoo xam dégg nañ ko dégg nga histoire bobu ndax mën nga koo nangul que Ousmane dugg ci wala lan nga xam ci lu mel wax ci wax ci parce que wax jooju pas ak non mais Bartlemy. ngay parce que je connais l'homme j'ai partagé des moments avec lui lu mode de fonctionnement ak c'est-à-dire yow loo gëstuwul xamuloo ci après da ngay japp ni de dëkku de écoutez je pense que koku bama rero ak mom ak tay euh, matul lan peut-être ñata weer ñetti weer ñenti weer wala lu demee nonu entre temps rien n'a pu changer te seqoon nañ lu nga xamné ne ni dañu don demalante di waxtaan suñu biir lu demee nonu su amoon ma ma xam ma xam lolu effectivement amna lolu mom man gëmuma ko parce que j'ai une idée de ce qui s'est passé pour trouver de l'argent parce que on a partagé beaucoup de choses ensemble. d'accord alors. kon ñoko déggando déggandoo ni mel la kii di Barthélémy Dias daal di yëkëti dal di ko témoigner kii di président Ousmane Sonko malgré lu nekk en conflit ci réew mi di Sénégal. li ni mel tamit ku ci amal ab ñangat di nga jaaree fofé dal di xam que ne kii di président Ousmane Sonko ku jub la ndax ñëpp ñu ko jot lolé lañ ko sédel té même nguur gu dëkk di ko tiiñal bu ko incriminé ñemewu ko jaarale ci ñàkk jubam. ndax kookee ginnaaw ba mu amee 15 ans biir impôt domaine daa génn daldi leen di tëkku daal di leen di xamal que ne bu fekkee ne dañoo def ay enquête ci ay financement te mu daal di jël ci réewu Sénégal sàcc ci lu tollook dërëm dañ ko tëj ci kaso bi lu des ci ngiiru dundam te ba tey nguur gi amuñu benn preuve jëmale si kookee dafa am ay détournement ci biir impôt et domaine te loolee lu muy tekk rek moom mooy ne Qui représente président Ousmane Sonko ku jub la musta xaalisu Sénégalais yi contrairement ak yeneen politiciens yu fi vous sur ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ngeen